gisee nag ñu jàppale Mouhamadou Makhtar Cissé euh, d' abord c' est un de conviction d' abord parce que gis nañu njëriñ bi mu bi mu bi mu amal bi mu amal dëkk ba gis ñu jàppale bi muy jàppale doomu dëkk ba gis nañu aussi taxaw bi muy taxaw doomu dëkk ba waaw depuis bu ma ba dara la doon leen dara da ko commencé def tey ba président wóolu ko tey jox ko ay ndombal tàng tey moo tax ñu ñu fas yéene taxaw jàppale ko boo xoolee tey daan na tey jaar yee ba am dara mm-hmm. mais booy xool di saa toog